Euh, asalaamaaleykum mbokku senegaal yéen ñi di seetaan Maкен TV tey ji nag seen mbokk seen xarit seen taalibe Seydou Nourou Niass moo ñëwoon ngir waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moom la ñuy gis ci suñum réew bii di senegaal réew maam El Hadj Malick Sy maam Baye Niass xaadim Rasoul maam Limaamu ak ñeneen ak ñeneen doomi soxna yu baax yu nekkoon fii ci suñu réew di Sénégal dëkk boobu de am na lu ñu yàlla may lu mu mayul yeneen dëkk yi mooy mag ñu baax ñi ma leen limal ñu si mel ne suñu maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall euh, lu ñu constaté mooy wax ju bëri te jubluñ si dara lu dul taal suñu réew mi nga xamante ni moom moo doon seet seetu Afrique ci wàllum démocratie ñun rek ñooy réew mi nga xamante ni depuis les indépendances en 1960 ba tey jii dañuy élire suñu président démocratiquement ku perdre woo ku gagné euh, félicité ko jàmm ne ñooy damay faral di dégg mag ñi di naan mag baax na bàyyi ci réew waaye dama siy teg bu fekkente ni mag ju baax la mag buy conseiller la mag buy yéete la mag bi nga xamanteni day doon puso di ñëw ay diggante mag jooju baax mat na bàyyi ci réew waaye bu fekkente ni mag ju mel ni Abdoulaye Wade la je me dis que danger le civil Sénégal Abdoulaye Wade man dama yaakaaroon ni dina fay doomu sénégalais yi si ans yuñ ko jiital mu nekk président de la République du Sénégal ñun ñoo doyaloon si moom voté contre moom mu daanu. dañ yaakaaroon ni dina def ñi nga xamante ni ñi ko jiitu lu ñu defoon mooy ñoom Léopold Sédar Senghor ñoom président Abdou Diouf ñooñu bu ñu perdee nguur gi dañoo dem France noppalegu Abdoulaye Wade perd na nguur gi lillahi wa rasuli li ko war mooy mu quitté réew mi dem bàyyi ñu si jàmm waaye di ñëw di woote fii ay fitna loolu je me ku am at yu mu am waru ko def tey jii am na quatre-vingt-quatorze ans donc koku mag la mën naa ne ñu nekk ci langue politique bi yépp seen pape la wala seen maam la warul ñëw di def ay déclaration yu fracassante yu nga xamante ni yii c'est violent violente baaxul parce que boo ñëwee nga naan taal leen carte d'identité mais carte d'identité yi du PS moo ko moom du PDS du APR carte d'identité nationale bu Sénégal la suñu réew moo ko moom tey jii je m'adresse à vous les jeunes soyez conscient Vous avez vous li nga def carte yi mais c'est vrai que c'est votre pièce d'identité mais c'est l'État qui a payé 50 milliards à quelques pour nous am ko déjà budget au nom de quoi l'action lakk la carte Ben, ñaareel déclaration dina envahir ay nit bureau de vote

na wax ñi nekk si opposition yi te présenté wu comme Ousmane Sonko comme Madické comme ñoom euh, Issa Sall mu ne voté leen pour diw mais deful benn consigne de vote dafa digle pour ngeen dem yàq bureau de vote yi là aussi je m'adresse à vous les jeunes paa bi bu bu mu leen dugal ci lenn lu baaxul benn boo leen demee ngeen bëgg taal bureau yi wala empêcher nit ñi voter. billahi wallahi di ngeen ko digle digaale ak nguur gi parce que duñ leen bàyyee noonu ñu humilier leen humilier leen euh, humilier leen yàq seen carrière dugal leen kaso fekk yéen yéen a nekkoon seen soutien de famille bu leen déglu lu mu wax képp ki nga xamante ni dafa war a conseil Abdoulaye Wad. na ko wax na dem noppaligu yàlla may na ko lu mu doon may parce que tey jii bu fekkonte ni dafa bëggoon vraiment Sénégal defal ko lu mu bëgg moo ñu taal suñu carte wala mu ñu ñu ñu ñu dem taal euh, procès verbo. day ñëw ak ñaari doomam Karim Wade ak Sindiély Wade ak soxnam Abdoul ak soxnaam soxnam suñu euh, Viviane Wade mu jitu ñepp xam nañ ni Karim ak si ak moom mi ak jabaram point E lañuy voter pourquoi pas si ñew jour vote bi mu dugg ci bureau de vote yi brûlé procès-verbaux mais gis ngeen il est venu le jeudi mercredi bu ko jitu dom ji quitté fi ñibi mom mu xey ñew loolu lu muy wul yobuna domam doomam ñu ngi bitim rew

Abdoulaye Wade nag bett nañu ba fu bett yem warul woon mais parce que boo seetaanee tey mitin yi mais xam nañ ne président Macky Sall am na lu ko yàlla may si mbooloo maintenant xamuñu ndax dina gagné wala du gagné loolu le 24 lay lay lay feeñ à 18 lépp dina leer mais lu mu wax nii du cëru mag kilifa diine yi kilifa aada yi. yéen a ngi seetaan Abdoulaye wadd di wax lu ko neex te loolu mën na jur fitna dama bëgg ngeen jóg woo ko yedd ko wax ko li nga xamante ni moom mooy dëgg parce que nit ki aussi doo ko bëgg ba ne yàlla ma ngi lay nuyu non Abdoulaye Wade def lu leen li nga xamante ni war na tax tey ngeen bàyyi muy wax li nga xamante ni lii mën na yee fitna ci Sénégal te seen maam yu baax yi ñu ngi tëdd fii seen doom yi seen soxna yi ak ñeneen ak ñeneen donc loolu laa bëggoon wax sama mbokku sénégalais yi bor bo fété mourid layen Khadre, Tijan, jullit chrétien ñun ñep nañu bolo ñaan ngir yalla defal ñu élection yi ñu djublu yalla def ci ndox bu sedd guy ko gañe mëna falu Sénégal ñun dara soxlu ñu dul suñu réew mi di Sénégal Wassalam.